at bu jot euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin dañuy war a màggal ba euh, xeex euh, désertification mooy àll bi yàqu bekkoor bi ñëw parce que loolu mën nañ ne sax benn fan lañ jàpp ci at bu ñëw mais dafa war a nekk xeexu bës bu nekk parce que xam nañ ne àll bi gàncax bi moom njëriñ bi muy jox kenn mën a comme naatable parce que ñuy noyyi oxygène la ñuy noyyi garab yi ñoom ñoo ñu koy jox buñ soxlaa ker ci garab yi lañ koy jëlee buñ soxlaa dund mbala garab ci garab lañ koy jëlee pour faju donc jur gi ñuy sàmm aussi il faut mu taw ñoom ñu mun a dem ci àll bi am ñax mbala am gàncax boo xam ne ni dinañ ko gi te jur gi moom la ñuy jaay euh, am xaalis mbala buñ amee soxla am xew jur gi la ñuy donc jur gi aussi moom bu nekkee ci àll bi mala yi nekk ci àll bi bu ñëwul ci nit ñi feebar yi nga xam ne ni mooy nekk ci àll bi mbala mooy nekk ci ñoom du yegsi ci ñu donc àll bi mun na nekk barrière mais bu fekkee ne àll bi dafa yàqu jur gi mala yi dañuy ñëw ci ci dëkkuwaay bi waa suñ lëkkaloo ak jur gi bu fekkee ne bés bu nekk noonu lay demee mun nañu jox ay feebar dem gis nañ feebar yu bëri yoo xam ne ci jur gi lay jóge parce que jur gi aussi buñ amul luñ lekk nañ ñëw ci kër gi gis nañ dëkk yoo xam ne ni golo yi dañ ñëw ci biir kër yi pour wut ak yeneen mala donc euh, thème bi dafa ne dafa wane ne ku ci ne war nga ci dugal sa loxo warul nekk mbirum eaux et forêt kese mbala warul nekk mbiru eaux état kese ku ci ne mooy maire bi mooy conseil municipal mooy agent eaux et forêt mooy sëriñ bi taalibe bi ñëpp war nañ ci dugal seen loxo ku ci ne garab ga nekk sa biir kër war nga ko toppatoo mbala nga war a jëmbat sa biir kër euh, bu ko defee mbala nga toppatoo àll fexe daay du am kuy gor mu xam nañ lay gore kuy ruuj mu xam nañ lay ruujee ba daay du yàq euh, àll àll bi du yàqu bu boobaa ñëpp mun ko juriñoo te loolu mooy tax ñu am développement durable parce que garab yi dañ ko donn ci suñ maam mais dañ ko war a léguer aussi suñu suñu sët yi dafa war a nekk ndono pour suñ sët yi donc moomuñ ko dañ ko fi fekk même bu fekkee dañ ko yokk amuñ droit saax saaxe ko donc ku ci ne war nga def sa xel ne lii war nga ko jëriñoo mais warul yàqu dafa fi war a sax dak loolu mooy def développement durable te Sénégal nag état la bu nekk ci àdduna bi donc ku ci ne waroo def lu la neex rek parce que ku ci ne kooku boo ko doon def te environnement amul frontière mënoo ne man garab gi may jëmbat li muy noyyi ci man rek lay yam bo boo tukkee nooy def pour noy hein donc il faut ñu xamné mbir mi ñun ñëpp ko bok ku ci ne def ci sa loxo ku ci ne dafa am lu war waaw boko défé jamm na ñoy té bo boo bo boo xéx yi am ni yépp ci walu àll bi lay joggé waaw xéx yi ngay gis ci aduna bi yépp ci walu ressources naturelles lay joggé donc ku ci ne da ngay foog ne yow yaa ko war a jëriñoo keneen du ko jëriñoo mais ku ci ne jël ca la nga wara jël keneen jël la mu wara jël bu ko defee jamm ne ñoy ku ci ne am sa kom kom nga dund am sa wërgu yaram donc euh, loolu moy suñ xex bëss bu jot euh, tay bëss bi da fay ñëw pour ñu gën ko magal mais ñun ci lañ sax ci lañ dëkk donc agent eaux forêt bi fu mu munti loolu ci lay xey ci lay gont ci lay ci lay fanaan donc ñuy ñaan ngeen jàppalu ñu ñu jàppale leen Eh, parce que kër yi la ñu jógee yéen itam àll bi war na leen mën a jëriñ garab yi war na leen mën a jëriñ muy nekk garabu àll mbala garabu garabu dëkku taax yi mbala garabu dëkk donc loolu la ñuy ñaan loolu ñuy ñaax nit ñi di gërëm ñi fi teew mm, pour aussi ñoom ñu nekk relais bu ñu demee ñu mun ñu jàppale ci ci sensibilisation bi sketch bi wane na ko wane na njëriñ bi wane na niñ la ñu war a farloo wane na aussi conséquences yi bu fekkee ne defuñ li ñu war a def te boobaa kenn du ci mucc donc ñaanuñ yàlla nag nit ñi am ay jafe-jafe mbala bekkoor nekk fi te bekkoor baaxul ci réew buñ defaree yoon ñu jëmbat ay garab bu ñuy tabax ñu xool wuñ daggee ay garab ñu xool nan nañ koy remplacer bu tabaxee kër lay doon kër war na am garab mbala ci buntu kër gi mbala ci mbedd bi donc loolu yëpp buñ ko defee aménager ay espace vert loolu dina tax lañ dindi woon ñu mun ko remplacer même bu fekkee dañoo dindi fukk ñu indi juróom bu yàggee dina loolu dina mën a dabaat lañ lañ lañ ñàkkoon mais bu fekkee dangay ngay dindi toujours te doo remplacer bu yàggee dara du fa des